yaakaar Yakar moo la féete ndijoor moom favori la bokk ma nga Yakar ndeysaan Yakar a ngi noonu fàqat na xale bi daan na tas yaakaar daan na tas yaakaar ak Grand Mbagnick Grand Mbagnick ngemboo ngemb lu vert li ginnaaw tas yaakaar ngemboo ngemb lu bula féetaleen càmm Grand Mbagnick jël na ko takk na ko tas yaakaar bañ na wicc na ko ñoom ñaar Grand Mbagnick tas yaakaar ndeysaan Grand Mbagnick Tass Yakar ñu ngi ci huitième de finale bi Grand Mbagnick Tass Yakar Grand Mbagnick Tass Yakar daan na ko Tass daan na Grand Mbagnick Tass Yakar daan na ko Tass daan na Grand Mbagnick daan na bas arbitre bi sifflé na tas yaakaar daw na yegg nañ ko fu sori mbot na daan na oh tas yaakaar daan na jël bu tas yaakaar qualifié na ndeysaan ndeysaan tas yaakaar qualifié na ndeysaan xale yaa ngi noonu ragal naa combat bee mooy gën a gaaw tas yaakaar ki ngay bëreel ndaanaan la waaye ndaanaan la moom tas yaakaar xale la waaye am na jom xale la waaye mën naa bëre xale la waaye am na cër ci làmb moom tas yaakaar ndeysaan combat baa ngi noonu mbokk yi sama caméraman bi sëñ Bassirou xamul lu muy def ndax équipe nationale bu Sénégal bi football jëmm jaa ngi fii ci Adrien Senghor waaye xel maa nga fële ca Cameroun ay waay yàlla nañu yàlla suturaal defal ñu ndam at bu jot ñu ne kaan bi suñu kaan la yàlla bu yaakaar tas ndaysaan xale yaa ngi noonu ci demi-finale bi Gaskel Diamma ak Tass Yakar ña bëre Tass Yakar daa bëgg a bëre bi door na Gaskel daw na ndaysaan ak Boy Faye Tass Yakar daa bëgg a bëre bi Gaskel jëli Gaskel am na ngemb xale bi dafa doole macha allah Tass macha allah xale la waaye am na force ndaysaan X9 door na tànk Boy Faye Boy Faye windeelu ñëwaat Tass Yakar daan na ko Tass Yakar daan na Gaskel Jamme Tass Yakar nga finaalu sa diggante ak T-Max wala X9 ban yëg-yëg nga am ci final bi ak compétition bi ni mu déroulé ni nga ci wane. waaw xam nga ñun dañuy sant yàlla di julli si yonent bi di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sam papa yàlla na yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñun ñu finalu sinu drapeau grand frère mbétte si ñun ndax kii lu ne liggéey na ko si làmb waaw te borom baax la. billahi waa sama adversaire moom waaw na ñëw ñu neexal ko ma daan ko rek moom daanaan la mais ndaanaan bu dajeeg ndaanaan bu dul ndaanaan dëgg ndaanaan da koy réer dañ koy nangal champion am nag bëre nañ am dalaay daan na ma mais ku mu dóor rek may aliyat bi waaw. maa ngi sant laa làmb yëpp di sant Malick suñu suñu père suñu lépp Malick moom suñu ci boolo quoi di ko ñaanal yàlla li mu bëgg si si booy rek yàlla defal ko ko quoi waaw tas yaakaar nag quoi moom champion la quoi ndax bu dem ba final xam nga ni champion la mais moom maa ngi moom mosu xam naa fàtte na ko Gambie. koo daanoon am na laay te ku ko dóor di ko abal yat. waaw mais làmb la rek damay làmbaliwaat rek garaawul nga bàyyi ma jël ko rek wax moom mooy loolu waaw. ñaar kan moo a jël Malick drapeau maa ko war a jël. maa ko war a jël di sant nag sama waa koñ xama di sant sama waa atelier sama waa gaale xama sama waa koñ bàyyi ma kenn ndax ñoom dañuy sonn ci man quoi di sant Idi bu baax Idi ndax chaque jour moom damay sonn ci affaire yi naa man demal demal bul bàyyi. bilaay walaay taala na danañ ci nekk nag. maa daanu Thiomby premier tour Dour Sané ma daan ma ñëw dawal si fii te bu ma jógee fii oto ndaw laay jël dem si 25 nag yi. arbitre bi sifflé na mbokk yi final baa ngi noonu dox ci diggante tas yaakaar ak T-Max wala boog tas yaakaar ak X9 ndaysaan X9 nag marque tas yaakaar moo la féete ginnaaw X9 moom nga jàkkaar ñoom ñaar mës dañoo laale X9 daan ko tas yaakaar ne ku ma door di nga abal jat bi moo éliminé Boy Faye tas yaakaar moo éliminé Gaskel Jamme éliminé Grand Mbagnick ndaysaan xale yaa ngi noonu Boy moo éliminé Ngoudaye ci compétition bi ay ndaanaan lañu ndaysaan moment bi may wax ak yow Sénégal dugal na troisième pion ndaysaan pour Ismaïla Sarr jërëjëf Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi ñaan leen kubo mooy suñu ndam mooy suñu sak ñu bàyyi yàqalante bi mooy ñu bàyyi yoole bi tas yaakaar jëli na ko tas yaakaar jëli na ko X9 ñu bàyyi yàqalante bi bàyyi yoolante bi bàyyi sabote bi bàyyi jiital équipe nationale bu Sénégal ba pare di ko fa kenn du noobul mbot mbot tas yaakaar mbot na mu bañ ndeysaan tas yaakaar mboot na X9 X9 bañ X9 tas yaakaar X9 moo la féetee càmmoñ tas yaakaar moo la féetee ndijoor tas am na lu mu bëgg ndaanaan la ci bëre xale waaye bu bëree nga xam ni ndaysaan xale la moom tas yaakaar waaye am na xarañte bëre am na xemmem teefu bëre am na cofeel ci bëre moom Tass Yakar waaye X9 plaqué na ko day daanu daan na daan na ko daan na Tass Yakar x jël na compétition bi x jël na compétition bi